yéen kaay yi ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi Cheikh Ngoné lañ ciy àndal comme d'habitude Cheikh maa ngi lay di la ziar. di la ziar wér wér soxna Fati suba saa yi di comme d'habitude noo def mbaa yaa ngi si jàmm ñu nuyu rapidement euh, sama naataango yi bokk téléspectateur yi télévision Futurs Médias dafa mel ni tey temps bi ñoo xaw a xooj waaw temps bi comme d'habitude premier première partie bi moo fi nekk di roube <laughs> voilà ayo ñu doore ko ak la une euh, ba léegi euh, mbiri législative yi la ñu xëyee l'indicatif euh, du euh, président la ko rek euh, daal di dippe mu ñeel li nga xam ne itam daal nañ koy amal la première histoire ak itam conséquence mu ñeel li nga xam ne voilà voilà ak conséquence yi nga xam ne moom moo ñeel marche de l'Assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar le futur lu ni mel rek daal di xëy fësal fësal itam nataalu ki nga xam ne moom moo di Aminata Touré leneen loo xamante ni Fati mënees na ko jàpp ci l'observateur bokk na ci enquête bu police ab bachelier boo xamante ni itam daal nañ koy arrêté ci mbirum euh, jakartaman bi nga xam ne itam euh, moom moo daal di génn àddina ca diwaan bu euh, Tëngéej keneen koo xamante ni dina amalante ak wàll yoon mu di Papito Kara mi nga xam ne itam da doon rek amal loo xamante ni du yoon mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di journaux yi ku mooywul dinañ rek daal di dem ca instruction leneen loo xamante ni yees na ci l'observateur Fati bokk na ci mbirum ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ñàkkoon seen i ay bébé ca diwaan bu Linguère xam nga ne un an euh, ginnaaw bi maanaam benn at boobaak léegi combat bi nga xam ne itam Balla Gaye 2 Gris Bordeaux war nañ ko amal juróom-ñeent ñaari fan ci weeru août bi nga xam ne itam moom la ñu nekk open press bi nga xam ne euh, moom Balla Gaye mi ngi ko doon amal euh, doon wax ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way taskatu xibaar yenn ci ay dogal yoo xamante ni doomu géejuwaay bi lee daal na koy jël jëmale ci ki nga xam ne nag moom la war a laale lu ni mel lépp l'observateur daal nu koy tënk ñaar fukki dërëm lay jar mu ngi ci li nga moom moo di euh, kiosque wala boog rond point yi. ñu dem enquête. enquête dikkaat ba tey ci lépp lu euh, soxal li nga xam ne nag moom moo di résultat yu responsable yu euh, majorité bi nag fortune diverse la ko rek daal di dippee xëy fësal ñi ngi lay nga xam ne ñoom ñoo bootu ci li nga xam ne nag moom moo di benn Bokk Yaakaar ministre Abdoulaye Seydou saw di wax rek ne ñenn ci opposition bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo fetee ci kujje gi bu fekkee dañoo bëgg a toogee. mu nga xam ne euh, moom moo féeteeg gouvernement bu Sénégal nañu ko wax ñu ubbi jéemé yi ak leneen loo xamante ni nag daal na koy euh, toftal moom Abdoulaye euh, Seydou Sow mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu enquête Fatick. aywa le quotidien. le quotidien dikkaat ba tey ci lu ñeel résultat yu élection législative yi xam nga ne boobaa ak léegi coow li mu ngi ci kii moo gagné kële moo gagné bu tax na itam daal na koy dippee en fin des comptes la rek laal daal di fërsal nitu daal ki nga xam ne. Euh, moom moo di Ousmane Sonko Abdoulaye Wade Aminata Touré euh, ñoom ñi nga xam ne itam jot nañoo ànd moom Abdoulaye Wade itam euh, ci lu tolloog 96 ans mu mel ni itam mi nga wéyal li nga xam ne nag moom moo di yoonam yàlla na yàlla yokk ay fanam incha allah. amiin yaa rabbi le soleil. le soleil dikkaat ba tey ci lépp lu soxal anam bi nga xam ne itam noonee la mbir yi doxe mu mel ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo doon caytu wal bi mbégte la ñu am ci anam bi nga xam ne nag noonee la yi amalee lu ni lañ ciy ñaawlu bokk na rek ci saa su nekk résultat yi nga xam ne dañ koy faral euh, di rek euh, fësal te euh, waxtu wa du jot lu ni mel lépp ñu ngi ko tënk ci li nga xam ne nag moom moo di le soleil faat yi. aywa libération. libération xëy ba tey ci lu ñeel wàllu accusation viol jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di Sitor Ndour nujo boo xamante ni itam détournant détournant la ko rek daal di xëy fësal mu daal di koy tënk itam ci ñetti ponk yoo xamante ni itam laale na ci mbirum. ki nga xam ne nag moom moo di uh, Sitor Ndour wi nga xam ne ci la jamono uh, mi ngi am lanteeg li nga xam ne nag uh, moom moo di wàllu yoon keneen koo xamante ni daal dinay xëy fësal lu ni mel di rek xeex wi nga xam ne moom Barthélémy Dias mi ngi koy amal ci diwaan bu Ndakaaru mu mel ni itam daal nay fëgg dënn bu baax a baax aywa ñu dem ci la tribune. ñu dem ci tribune tribune itam dikkaat ba tey ci euh, lépp lu euh, soxal ñi nga ñenn ci ñoo xamante ni itam euh, féete nañu ci li nga xam ne nag moom moo di gouvernement bu Sénégal moom njiit mu réew mi am ak li nga xam ne moom moo di yaakaar gu tas ci li ñi lee nga xam ne nag jot na ànd ak ñoom te ñu rek làbbali leen ci gox yi nga xam ne fa la ñu féete mu di seen i ay fief ak yeneen yu ni xeetoo faat yi tax na itam aw njàqare képp dong lañu ñu rek daal di gis fësal tribune itam xëy fësal li nga xam ne itam moom moo di ah, mbirum si toor nduur daañu gën a faram-fàccee lu ni mel ci ñaareelu pàcc wi donte eh, temps bi la ñoo xaw a xool aywa ñu dem ci Walf Quotidien Walf Quotidien euh, dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu dundu gu cher gi transhumant yi nga xam ne itam transhumant yi nga xam ne euh, gis nañu leen ñu jugee ci seen ak parti euh, dem wutali ki nga xam ne nag moom moo di mouvance présidentielle lu ñeel itam ñetteel bi mandat ndax dafa tax ñi nga xam ne ñoom ñoo di Sénégalais yi dumbooyu njiit bu réew bu Sénégal am déet ñaareelu pàcc wi daañu ko gën a faram ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu Walf Quotidien leneen ci loo xamante ni daal nañ koy bëgg tàngalaat

géejuwaay bile la mu xamle mu di du mayeti benn mbër boo xamante ni da koy joxar bi baaraam aywa ñu dem ci bés bi la jour. bés bi le jour bokk na ci li mu jàngat ginnaaw itam aw waxtaan boo xamante ni séq na ko ak nga xam ne nag moom moo di professeur Ndiogou Sarr cours magistral mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di cohabitation gulet la fii ci bu Sénégal ñu bëri ñu ngi koy doog a dégg am déet professeur bile dikkaat na ci ak jàngat bu yaa jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, lecteur yi faat yi. aywa ñu dem ci beneen yéen kaay muy euh, euh, las. ñu dem ci las las dikkaat itam ci mission wi nga xam ne itam moom la ñu dénkoon CEDEAO mu ñeel li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, mbilu élection yi ñenn ci acteur politiques yi itam nga xam ne daal nañ leen di euh, dànkaafu ci yenn ci ay résultat yoo xamante ni dañu koy faral di fësal faati wala fu ba tey wala boog laas si mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Balla Gaye 2 lu ñeel résultat yu élection législative yi mu mel ni tam APR ma ngay fëgg dënn di yuuxu li nga xam ne moom moo di victoire moom Mimi Touré yëkkati loxo jëm ca kaw aywa Vox Pop. Vox Pop ak kile yi nga xam ne am na ñenn ci ñoo xamante nii ñu ngi ci gouvernement bi te juruñu lenn lu dul tooke euh, jëmale ci ki nga xam ne nag euh, moom moo di euh, njiit bu réew bu Sénégal ginnaaw bi tam la muy sàkku mu di moom président Macky Sall war naa tëggaat lu ni mel lay jàngoro ci li nga xam ne moom moo di Benno Bokk Yaakaar mu daal di seppi teg fële Mbagnick Ndiaye moom moo gisee lu ni mel ay kàddoom la yoo xamante nii daal dina ko yëkkati xam nga ne itam ku nekk mu ngi daal di xëcc jëmale sa boor tax na itam ñi foofule nga xam ne moom mooy conseil national des imams et oulémas du euh, Sénégal di dànkaafu ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo siq langue politique bi ndax itam la ñu jortu euh, moom moo di lu ni mel mënees na dugal réew mi ci aw guuta Sud Quotidien Sud Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di législative yi jàngat yi nga xam ne itam moom njiit bu réew bu Sénégal war na ko am ci jilee nga xam ne jàppal nañu ko tànk te itam ñu daal di lajjee fu ne ci gox yi nga xam ne itam moom may la moom gouvernement moom njiit mu réew mi ak ginnaawam euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di wet gi gis nga leen ñoom ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ko euh, séq ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci wàll wi mbirum wér-gu-yaram suivi des accords gouvernement syndicat de santé and gësëm dépose benn préavis de grève ñàkkul ni itam ak ak yelleef aywa le témoin ko le témoin dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di ñenn ci ñoo xamante ni jëlee nañ leen ca parti wa ñu nekkoon yóbbu leen ñu féete ci mouvance te juru ñu lenn euh, lu euh, loo xamante ni nag dañuy dégg wiw jëmale ci euh, nguur bu Sénégal ñenn ci ñoo xamante ni dem nañ fa daañ ko tënk ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu pàcc wi faat ñu gën koo gaawal. aywa record. record dikkaat ba tey ci les raisons de mise à l'écart de Bamba Dieng Bamba Dieng boobu ak léegi ñu ngi àddu ci li nga xam ne nag moom moo di carrière ci li nga xam ne moom moo di journaux yi journaux yi leneen lu ñu xëyee bokk na ci photo ki nga xam ne nag moom moo di Sadio. Sadio Mané euh, doomu Bambal yule nga xam ne daal nay séq ak waxtaan wu yaa euh, ci li nga xam ne nag moom moo di euh, yéenekaay bile ci lu soxal wàllu expérience am bi nga xam ne nag am na ko ci club bi nga xam ne nag ba moo ko ganee ak léegi yàggul mu di Bayern. aywa rapidement stade. stade Mané ñancoo ab waxtaan woo xamante ni itam séq na ko ak stade mu ñeel star bi nga xam ne itam dañ ko koy oowee ci humilité am ak itam woyofteem li mu xamle mu di lu ni ak taalibe a euh, sàkku ak leneen ci loo xamante ni ay ponk la mu daal di koy séq ak li nga xam ne nag ñoom ñoo di waa stade numéro 17 bi nga xam ne itam euh, mi ngi koy sol moom ñaañe maane ñaancoo daal nay dikkaat ci euh, mbir mu ni mel. sunu làmb ak Balla Gaye. Balla Gaye la mu xëyee mu di après Gris Bordeaux mbër dootu ko yëpp benn mm. yoon mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 4 lu ni mel itam di janoo bi nga xam ne mi ngi ko doon amal ak way taskati xibaar yi ak nga xam ne ñoom ñoo di ay fans Balla Gaye combat bi soreetul juróom-ñaari fan ci weeru août nga xam ne moom la ñu nekk euh, faati mu mel ni euh, pàcc wu njëkk wu ñeel li nga xam ne rek moom moo gën a fës ci yéenekaay yi ñaareelu pàcc bi ñu dikkaat vers huit heures gën koo faram-fàccee baaxee ko mbokku téléspectateurs yi incha allah. jërëjëf Cheikh Diop rafet na ñu bàyyi la nga dem jëli tuuti pause ci kanam incha allah di nga ñëwaat ci ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure jaajëf waay Cheikh Ngoné la ñu àndaloon ci yéenekaay ak na mu xëyee Malick Thiandoum euh, Chérif Marcel ba Mahoud mu mel ni yéenekaay yëpp itam xëyaat nañ ci législative yi ñu ngi ko doon wax dem démb c'est la guerre des chiffres euh, kenn ku nekk yaa ngi xëcc suñu ne kenn ku nekk nag euh, wàllu yeewu la ak benn bokk yaakaar ne yaa ëpple euh, lu ci mën a am fi mu ne nii daal coow li bëri na ba gis nañ sax ñu ci me ñoo nga xam ne dañoo bokk bennoo ko ci mel ne Mbagnick tey génn na ci yéenekaay yi Mbagnick Ndiaye ancien ministre def sortie jërëjëf euh, soxna soxna Fati alors euh, ñi ngi xaarandi encore les résultat officiels jóge ci commission bi nga xam ni moom mooy saytu lu jëm ci vote yi muy commission nationale de recensement des vote yaakaar nañu fii ak suba wala àjjuma résultat euh, yi nga xam ne mooy résultat officiel yi dinañu génn mais mën nañ ci def jàngat bu ndaw bu nga xam ne déjà soxna Fati li ñu seetlu moo di ni am na ay jeunes leaders politiques yu nga xam ni commencé nañu émerger mën nañ leen sax bañ a tudde ay politiciens parce que bokkuñoo ñi nga xam ni c'est des politiciens yuy xëy di gont ci politique di ci noor di ci nawet samp ay parti lu yàgg yàgg ba ñu ràññee leen ci landerneau politique bi ñii ay visage yu bees la yu nga xam ne commencé nañu wane seen bopp ñu mën ci citer rek ku ci mel ni Pape Djibril Fall les serviteurs ku ne gis na percée bi nga xam ne def na ko euh, gis nañu tamit Guy Marius Sagna ah encore un novice dans la politique bu nga xam ne tamit am na euh, résultat yu résultat yu baax mën nañ ci citer également ñeneen xam ni tey commencé nañu wane seen bopp ci no politique bi loolu day wane rek ni tey il ya une volonté exprimer des des des populations de changer un peu euh, le, le le le nos dirigeants politiques il y a un rajeunissement progressif de la euh, progressif de de de la de progressive de la classe politique ah en plus de ça le discours purement politique ne passe plus au niveau euh, de certaines populations. Mm-hmm. beneen bi ci des également euh, gis nañu ni ci wàllu Benno Bokk Yaakaar. Euh, tey lu bëri effrité wu na ci seen capital bi nga xam ne amoon nañu ko ci wàllu élector ci wàllu électorat. Mhm. te lu bëri euh, boo xoolee euh, ñu bëri dañuy faral di wax ni kuy naaw di say dunq di ruus fa nga jëm dafa sorewul analyser nañ ko gis nga léegi Mbagnick Ndiaye sorti bi nga xam ne def na ko. Mhm. nee na ñu bëri ñu nga xam ni dañ leen a teggi. Mhm. boddi leen te ñu nekkoon ay dirigeants. affirmé am base politique bu leer. Mm-hmm. Macky Sall xëy xëy dàq leen. Mm-hmm. ñooñu ñëpp boo xoolee gox ya ak ña ñu fa samp dañ leen dañ leen a gañe. Mm-hmm. mën nañ ci citer ku ci mel ni Mbagnick mën nga citer ku mel ni euh, tey euh, Abdoulaye Diouf Sarr mën nga citer ku mel ni Amadou Ba mën nga ku mel ni euh, l'ancien d'âge de la présidence de la République Abdoulaye nduur mën nga citer tey ku mel ni peut-être li Linguère sax Aly Ngouille Ndiaye gagné na fa mais demoon na ba am ay. leader politique yu nga xam ne. Mm-hmm. commencé woon ñu am doole ba ci Mimi Touré mi ñu ci bari dañ leen a wàcce Euh, euh, seeni militant merle leen mm-hmm. même boo leen militant yi woteel leen parti bi du ñu ko woteel dañuy sanctionné donc loolu yëpp mun nañ ko ci expliquer beneen bi nga xamante ni moo ci des aussi mooy doole bi euh, opposition bi commencé am ak leadership bi Ousmane Sonko di incarné am na tey un charisme qu'il est en train de dégager am na tey benn popularité bu nga xam ne am na ko ak notoriété bu mu am auprès de la jeunesse ñu ci bari dañ koy topp loolu aussi mun na expliquer grande partie li nga xam ne tey moom lañu gis ci élection yi mais bu ñu fàtte euh, Ablaye Wade dafa des ci xol yi. Mhm. te ñëw bi nga xam ne ñëw na ko ci élection yi. Mhm. am na lu bari lu mu joué rawatina ci yenn gox yi. Mhm. keroog bi mu ne cëpp aéroport gaa ñi gis góor gi mu ñëw. am ñu bari gis ko bi muy dem ci bureau de vote ba ñu relayer ko en direct mu def son devoir citoyen mhm. ñu bari seen xol tooy na parce am Ablaye dafa yàgg ci xolu askan bi mhm. euh, te wallu gis nga tey percée bi nga xamante ni def na ko l'un dans l'autre il y a vraiment euh, tey une percée d'une nouvelle classe politique mhm. plus jeune dont le discours passe auprès des populations. Mhm. te fi mu nekk nii le parti au pouvoir est secoué te mhm. il doit faire une analyse très profonde ci li nga xam ne tey. Mhm. mooy li xew parce que même bu fekkee ni amuñu euh, minoriser wuñ leen la ñuy am du ko taxa takku. ba ñu écraser nit ñi au niveau de l'Assemblée nationale. très bien Marcel avant ñu dem ci Chérif. waaw donc euh, en fait comme ni ko Malick ni nga ko jeexalee rek je pense que quoi qu'il advienne résultat yi nar a joxe euh, li ñu li ñu mën a jàpp mooy euh, c'est un véritable signal quand même pour pour le pouvoir. Euh, ndaxte euh, bu ñu xoolee 2017 95 des 105 sièges euh, du scrutin majoritaire départemental Benno Bokk Yaakaar moo ko remporté woon mm-hmm. donc là même bu fekkee ne Benno day am majorité au sein de l'Assemblée nationale elle sera elle sera quand même très très infime donc muy nécessité benn jàngat quand même au sein du, euh, du, du, pouvoir, une, une quasi-cohabitation comme, comme jamais il n'y en a eu à l'Assemblée nationale quand même. Ouais, euh, donc euh, mu di mu di benn signe. Mhm. il y a forcément une sanction bi nga xamante ne jóge na ci urne yi de la part des populations. Mhm. li nga xamante ne entamé woon nañ ko depuis depuis janvier lors des locales avec. quelques surprises ci ay gox goxaat yu yu bëri euh, moom la ñu euh, confirmer un petit peu pour ces euh, pour ces élections mmh. législatives donc l'opposition a, réussi un, véritable pari mhm. en tout cas l'opposition euh, incarnée par par Yewwi Askan Wi ak ak Wallu mooy mhm. que ñu ngi titiller en tout cas au vu de au premiers résultats mhm. ñu ngi titiller convenablement considérablement le pouvoir et que donc la question du troisième mandat fu mu nekk nii je pense que on peut les mettre on peut la mettre aux, aux oubliettes mm-hmm. même bu fekkee ne c'était pas ça l'objectif même d'une des élections que euh, fu nekk nii euh, Macky Sall a tout intérêt à ne pas parler d'un troisième mandat en 2024 euh, euh fekkee ne ni lay nar a continuer il par la la grande beneen mbir mooy comme ni ko Malick waxee saluer bien évidemment ces ces nga xamante ne dugg nañ ils vont en ni Pape Djibril Fall ça n'a Euh, def na benn campagne boo xamante ne elle a été simple euh, il s'est présenté au auprès des populations mhm. déglu nañ ko il a présenté des programmes et euh, mu jàll ci li nga xamante ne ay élections la où il y avait quand même des expérimentés qui mhm. qui concouraient mu mu leen ci ci ci ci wàllu boobu noonu mhm. et puis parler de ce taux de participation tamit parce que ba léegi on ne connaît pas encore les les chiffres au tout début ñu ngi doon ragal ne taux de participation bi mu doon lu néew

Euh, je pense pas peut-être que dinañ fa yegg mais en tout cas euh, li ñu jotoon am au tout début de la journée ak lu mujjee am on a vu quand qu'il y eu un, un même si c'était de dernière minute mhm. euh, de la part des populations qui ont quand même peut-être adopté une nouvelle stratégie bi nga xamante moom mooy léegi comme c'est incarné par la jeunesse mhm. ñoom ñooy bëgg di dem voter ji léegi ñoom stratégie bu bees la indi yeewu fajar dem voter ji peut-être du Dakar, ce n'est plus une surprise que, que, Dakar est finalement acquise à, l'opposition. très bien aywa euh, Chérif euh, ni ñu ko waxee euh, fii ak àjjuma résultat yi dina génn ñu koy xaar ci commission bi toppatoo lépp lu jëm ci recensement des votes mais en attendant coow laa ngi bëri te sànq maa ngi koy wax on a vu quand même la sortie de de de Mbagnick oui muy ay propos yu dur président xam nga nettoyer grande eau tous ces virus Ebola qui vous entourent xam nga aussi c'est trop facile bu problème amee rek la magum jëmm la. Mm-hmm. li naan xaw sax bu njëkk boo boo defee dara mag ñi da naan la ndax buñ la ko def teg la woon sa loxo bi ci taal bi di nga ko def. donc mm-hmm. président duñ ko def loolu mu bëggut. Mm-hmm. je pense que des aussi il faut que ñi nga xamante responsable yi c'est vrai qu'ils ont perdu mais le principal responsable responsable d' ici c' est le président parce que moo def casting am moo tànn mi ngi ab équipe de football suñ demee entraîneur def de mauvais choix bu problème amee le principal responsable c' est étant donné que fii aussi bu fekkente ne en tout cas ci grande ville yi. boo constaté ñoom ñi nga xamante ni quand même mooy la majorité li tax ñu ñàkk ko loolu bokk na ci mooy président bi nga xamante ne également même bi mu def li di investiture yi ni ñu ko doon defee en tout cas ci ay parti mu am concertation wala ñuy yebal ay responsable ci àll bi ñu dem fekk ñoom ci seen dëkk xool leen ñu xool kanita ànd defan président moo toog fa mu toog tànn ñi mi donc bu problème amee Mbagnick Ndiaye bu wax kenn wax ak président mais c'est c'est c'est ñu ci bëri aussi bëgg nañoo ñëwaat parce que Mbagnick mi nekkoon na fi ministre bi wala moo xëy na euh, bi ñu ko dàqee donc gisaatuñ ko moom mhm. moom défaite bi en tout cas défaite politique la ci régime bi parce que boo xoolee ñi ngi ñàkk ay voix ni nga ko différence bi seen opposition parce que boo xoolee Dakar voilà où par exemple l'opposition am plus de cent quatre-vingt-dix mille voix ñoom ñi ngi am quatre-vingt-treize mille voix dafa mel ni kon remontada mm-hmm. am na ay maire ak ñoo xamante ñëw nañ fekk si leen mm-hmm. dafa wane ni rek jàngat ba woonoon en tout cas ci élection locale yi defuñ ko parce que moo tax yi boo génnee ci ay élection bala ngaa sobuwaat ci leneen war ngaa def benn analyse bu mag loo mën a tax nga mën a jooyanti loolu nag amut beneen suufu nuur boo xamante yéen koy gis. Mhm. yéen ngi wax nag maintenant ku mel ni Pape Djibril mhm. muy kersa que classement bi ñu gis nii moom mooy quatrième quatrième ah ci ci huit coalition yi jiitu na fi ay parti traditionnels yoo xamante ni. bokk gis-gis bokk ay aar da ngay mm. xool ni c'est PDF qui devance loolu. li ko dimbali nag mooy choix bi mu def métti woon na mais je pense que c'était le bon choix mooy parce que dañu tolloon ci genre bipolarisme boo xamante entre Macky Sall Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko boo làqatu mm-hmm. boo demoon ci ci diggante ni nga ko waxee moom ak yeneen coalition yi nga xamante xëy na mën nañu ndax kenn du fa am moom majorité écrasante moom amut ko fay dem tamit de relative lay doon parce que ñu ngi ko doon wax démb Benno Bokk Yaakaar pour il lui faut 26 députés yu mën a yokk yi nga xamante am na ko ci département Yewwi Askan Wi il lui faut 28 députés ci 55 yi nga xamante am na ko ci département yi donc faiseur de roi yi maintenant c'est les PDF les petits partis là maintenant difficulté bi mooy. fan la nar a féete wala surtout boo xoolee ñoom it ak Ousmane Sonko les derniers discours qu'il a tenu contre. cette opposition là lim ñim ne loolee pour Macky est-ce dina yomb ñoom waa Yewwi Askan ëllëg suñ soxlaa ñaar ay voix foofu ci ay député mën a xëccaat gars yi étant donné que diggante bi ñagas na gis nga Thierno Alassane Sall nga xamante ni mën na mën nekk député foofu mu fekk leen fi nga xamante mooy mm-hmm. mu génn ñu mais daal soxla na ay jàngat yoo xamante ni moom mënatul ñàkk bon Yewwi Askan Wi j'ai vu benn communiqué bu ñu def dans le nord mais Sénégal aussi lu ñu ci mën a wax ay sàcc ci bi yooyu moom je ne pense pas que mënati fi am parce que comme ni ñu ko waxee avant élection yi ñoom ñëpp jox na leen fichier électoral bi ku xool fichier bi. la fa nekk ci ay inscrits war nga mën a càmbar bu rekk jàngat nga ko xool ba xam est-ce que dire que dans le nord am na ay bourrage des urnes et est-ce que loolu mën a dina nekk ci réew moo xamante ni mm. fu ci nekk surtout que ñoom loolu waroon ko woon sax nangu wala ñu sàggane ko parce que bu mm-hmm. nekk ñu teew fa ci bureau de vote bu bu fa yeewu nekkul wala war na mën a nekk. mais bu fekkee ne da ne intercoalition. Mm-hmm. dëgër ba pare mënoo teew transhumance bi aussi gars ñi nañ ko bu baax parce mm. tey boo fekkee shérif euh, mu gagné localité am nga dem débauché ko euh, du nekk shérif day dem ànd ak askan bi askan bi ñoom ñooy seet ki nga xam ne moo leen doy également ñu voter ko mm. arrogance ak itamit inaccessibilité ci yenn dirigeant politique yi loolu aussi askan bi sanctionné nañ ko parce bu fekkee ni dañ la fal da nga war a jege sa askan di leen déglu mm-hmm. très bien aywa Malick Thiam bi mu di koy jaajëfal naka noonu Chérif ak Marcel Farba Maroun léegi léegi un jour au Sénégal un jour dans le monde. voilà Malick maa ngi nelaw de maa ngi bàyyi lu am maa ngi bàyyi lu grave ci plateau bi en direct. tout à fait normal <laughs> liggéeyoo di démb da ngaa wàcc daw liggéeyoo dem tëdd nelaw. jël naa sama wàll ci nar bi loolu la ko Olof Ndiaye di waxee Malick Diallo ah, Chérif bàyyiwul ma sama wàll ci nar bi leen damaa wàcc liggéey daw léeg-léeg mu jël téléphone am wala na tam xarit gaa a nar léeg sa nar teel naa ñëw bu seen mu woo ma ne ma kaay nga daan si sa doole xaw ma nag li may def nii bu fekkee du daan sama doole xaw ma lu mu doon fajar mooy càppante <laughs> nga yeewu ñëw toog fi jàkkaarloo mu naan la liggéeyoo aywa jërëjëf euh, tey nag euh, au Sénégal un jour dans le monde euh, ñuy fàttaliku koo xam ne euh, fii ci euh, taarixu caada icône la fi Alaaji Ceerno Njaay dos moom nag xam ngeen ne artiste la woon artiste comédien mi ngi génn àddina bis ni tey atum 2012 ci diwaanu Saalum dëkk bu naan Kaolack ci juróom-ñaar fukki atam ak ñaar ku xam Ousmane Sembène ak œuvre bu rëy bu mu fi bàyyi xam ne Thierno Ndiaye Dos liggéey na ci lu am solo bu leen fàttali